oui fii la bëgg ngeen. non mais tamit ñun bandi fële la ñu ci géew gi. ci géew gi waaw waaw waaw gis nga. waaw mais tamit ndam dafa neex gaynde bilaay di ñaan yàlla mu yokk rek. mais eh, suñu gaynde bi nga andi daan bëre bëre xëy na noppalu mardi nga dem jëlaat avance. waaw mais loolu mooy indi moom la ñu waxoon li nga xamante ni moo ñu delloo si ak Sénégal rek loolu ci loolu la ñuy nekk ba tey di wax ni euh, ñu ngi woo euh, euh, Grand Yoff yëpp di leen woo samedi le 12 fële ca terrain Lawbe ñu ñëw ñu sargal waa Grand Yoff ñëpp zone 7B di ñaanal sama rax sama xarit yàlla defal ko ndam lu sedd guy muy mbaax ñu dem feete ko foofu incha allah. sa digganteeg bàyyi ma ñoon taxoon laa jógee Espagne ñëw nga ñëw mu yaax nga bëri am ndam jëlaat ko. bi. ba tey dañ nekk ci même dynamique bi rek continuer di waat continuer waat di liggéey rek après jël Baye Mandione rek si di ñaan yàlla defal ñu si ndam di ci woo l' ensemble zone 7B de ñu ñëw jàpp ci euh, le 15 yàlla defal ñu ndam incha allah ñu ñëw féete ko biir Grand Yoff. ñu ci bëri nag nee nañ combat boobu doomu daanu mën na ci am. kon la ñu xam man maa koy dóor mu daanu. mën na laa doo nga daanu. non sam sama morom mënu ma dóor ma daanu impossible. Baye Mandione moom dóoral ma dóor lay def. dëgg yoo ma de màgget naa fi mu ne nii la. day simb rek lii la fi dese. jeexal na tàkk. soo ma ñëw laa yor bàyyi ma ñëw bëri naa eh, bëri naa copine la fi mu ne nii jeexal naa. fu mu taxaw day wéeru. bàyyi ma ñëw bëri naa Modou Lo de. buy. sax daf ma dama dama xaw a ruus. Ousseyn ma ko jël nii. mag la léegi. bàyyi ma ñëw dara nekkul. non dara nekkul kooku dañuy jaar jàll. moom bu dee def loolu sax dama koy ñaay dama koy dóor mu daanu. lu leer laa la mais ko xam nga li ko na dara nekk fi nga ñëw bëreeg moom. du ma ko xeeb de. li nga waxee dara nekk fi. déggoo ma de je le respecte et je le sous mais moom yëkkatiwu ma du moom. moo ma taxoon a jóge déedéet roi des arènes moo moo ma tax a jóge si Espagne ak sama décision. si man maa gaaw ci ponkali ñoom balaa ñoo jóg fekk man jóg naa ba wàcce. est-ce que nga dana jox bi nag moo nekk. non dama koy passé incha allah. man je je rate jamais mes si man maa borom combat défi si man kese maa fiy toog cinq ans ñëw bëreewu ma ñëwaat dundalaat làmb keneen du ko def yoon du ko def amul beneen mbër bu koy def parce que loolu yàlla moo ko def si ñun. c'est moi le chouchou de l'arène loolu yàlla moo ko def. sa mi arat sa arani mi arat ko min woni bakan si mi jaggi yo sehlaɓe ma dog billahi yow sama mbokk njaagoy ha sama mbokk haalpulaar e oɗon banndiraaɓe kalpulaar men mbeltima no feewi on jaarama allah jaarama men heeɓi combat menen e bama jon ñaguene men allah dokka victoire e dow makko e ñalande kinse somos monjas españoles, ustedes los españoles tenemos otro combate, eh, recen por nosotros, ayudarnos por para que ganamos este combate por ustedes. Somos monjas francés, ñom saram ñom jibija, sama gaay eh, ma ah, ñu japp ci combat bi gaay na. Ah, ah